moom mi nga xam ne moo yor wàllu ndox mi ak wàllu assainissement di Cheikh Ahmed Tidiane Dieye ak mboolem délégation bi nga àndal bépp te buñ ci tuddee gouverneur de la région de Diourbel tudd ci préfet bu Mbacké ak sous préfet bu Ndaam ak Serigne Abdoul Ahad Ka mi nga xam ne moo leen dalal ci dëkk bi kon nee mi ngi lay yóbbante am nuyoo ci sa kilifa yi la fi yebal ca ka ca di président Diomaye Faye Bassirou Diomaye Faye mi nga xam ne ci ndigalam nga fi ñëwee ak ndigalul premier ministre di Ousmane Sonko di teg nag nuyoo bi ci sa loxo nga jàllale ko ci ñoom di leen ñaanal nag. yàlla dimbale leen ba yaakaar yi nga xam ne nit ñi am nañ ko ci yéen sunu borom kàtt na leen ba ngeen mottali ko ndax nit ñi kat yaakaar képp lañ am te yaakaar moo tax ñu teg leen fi li ci sottal gi nag ci loxol sunu boroom rek lay nekk nee na barki démb moom bi président ñëwee dégg ngeen kàddu ya yëkkati moom sëriñ bi ci ndigalul sëñ Muntaxa wax ne sëriñ Saalihu moo ko waxoon neewoon na nguur gu amagul ñeen fukki guddi kenn du ko teg soxla kon day mel ne ginnaaw bu ma leen nuyoo ndax kàddu yi may yëkkati yëpp ci ndigalul Cheikh Mouhamadul Muntaxa rek laa ko yëkkati bu amutoon ngant eh, nee na kon moo leen di gàttandul boppam wax ne kàddu yii nga xam ne wax na ko Cheikh Mahamadoul Basir te danaa ko leeral ci biir wax ji ba mu ci yéen nee na loolu sëñ Saliou waxoon daa waxoon ne nguur gu amagul ñeen fukki guddi kenn du ko teg soxla ndax xarab daa teel cantit dafa teel. cantit dafa teel. kon ci waxtu ñaanal leen ngeen toll. kon waxtu wi ngeen toll mooy waxtu ñaanal leen rek. foofu dong ngeen toll. ndax ko ak seegul. xamagoo lim fi fekk. xamagoo lim fi fekk. xamagoo li nga war a def. xamagoo li nga war a def. bu la nit ñi bëggee teg ay soxla. bu la nit ñi bëggee teg ay soxla. bu la yàlla dimbaliwul. booy bu la yàlla dimbaliwul. nga ànd akuk dal. boo yeexee loola mën na laa juumloo. kon ñëw gii ngeen fi ñëw. bu ngeen ñëwagutoon it. bu ngeen ñëwagutoon it. dañuy xam ne dafa teel. dañuy xam rek ne dafa teel. ndax xam nañ ne. ndax xam nañ ne. la ngeen war a xam lépp. la war a xam lépp. matagut matagut. kon yitte ji ngeen am ci dëkk bi. kon yitte jii ngeen am ci dëkk bi. moo ko waral. loolu nag jàpp naa ne sa yaari kilifa yooyee. li leen waa dëkkub Touba li leen waa dëkkub Touba lebal. ci ak cofeel. ak jàppale leen. àdduna sépp xam nañ ko. ndax jàpp naa ne. Euh, ñi fi dëkk. ñi fi dëkk. Euh, mosuñoo dañ ci di leen bëgg. mosuñoo dañ ci di leen bëgg. ak sonn ci yéen ak sonn ci yéen nag lool. mu jaral leen seen bakkan. mu jaral leen seen bakkan. kon day mel ne. yéen itam la sëñ waxoon rek. yéen itam la sëñ Abdoulaye waxoon rek. moo ci am moo ci am. wax ne bor boo mënta fay. day wax ne bor boo mënta fay. loo am loo am rek dawal ko ca la. kon nag kon ñu ngi lay sant. ci yitte ji ngeen def. wax naa la léegi ne la biñ nuyoo. wax naa la léegi biñ nuyoo na la. ñaari ministères yi gën a metti ne la ñaari ministères yi gën a metti moom lañ teg ci sa loxo. moom lañ teg ci sa loxo. muy ndox. muy ndox. ak assainissement. kon nag. xëy na ñoom ñi la tànn. xëy na ñoom ñi tànn. ba tax ñu teg la fa. ba teg ñu tax tax ñu teg la fa. xam nañ ne. xam nañ ne. poste bu diis la. boo xam ne ku am yitte moo ko mën a àggale rawatina nag ci dëkk bii di Touba ndax Touba ñetti jafe-jafe yiñ gën a am ñetti jafe yiñ gën a am ñaar yi ci sa loxo la nekk ci sa loxo la nekk benn bi mooy ndox mi benn bi mooy ndox mi benn bi assainissement li ci des tali yi tali yi sax li ci ëpp yi sax li ci ëpp ndox mi ndox mee ko yàq. benn bi ñàkk assainissement. benn bi ñàkk assainissement. bi ci des napp bi nga xam ne. bi ci des napp bi nga xam ne. mooy génn ci biir. mooy génn ci biir. moo tax tëli boo fi def. moo tax tëli boo fi def. bu waree am fukki boo waree am fukki at. boo fa jaaraatee ñaari at. boo fa jaaraatee ñaari at. gis tëli yëpp toj. gis tëli yëpp toj. kon liggéey la bu xóot. liggéey la bu xóot. boo xam ne du lu ñuy ñab ñabal. boo xam ne du lu ñuy ñabal. liggéey boo xam ne itam. du liggéey boo xam ne itam. luñ naan la fii ak màggal gi a noppi. wutal la dele naan la fii màggal gi war naa mën a noppi ndax loolu mënut a nekk. ndax ko xam eta ci lépp lu muy def. ci lépp lu muy def. lam laaj ci ay études. laaj ci ay études. ak wuti noo koy defee. ak wuti noo koy defee. loolu du lu mën a gaaw. loolu du lu mën a gaaw. kon yi ci gën a jàmp rek. kon yi ci gën a jàmp rek. Serigne Abdou Lahad Ka tudd na ko. te waxoon naa ci ak moom démb. bi ci jiitu. bi ci jiitu. mooy duggukaay mooy duggukaay yi ci dëkk bi. daanaka ñetti at yëpp sama ngi koy soññee. daanaka ñetti at yëpp maa ngi koy soññee. ba daaw waxoon naa ko ñi fi naa ñi fi doon toog. ba naa ko ñii nga xam ne ñoo yor assainissement bi xam naa ñi ngi fi toog. waaye boo dañuy wax ne diggante weer naa nga la xaj gas fi xaju fi. waaye booba dañoo waxoon ne seen diggante ak màggalu Tuuba weer la gas ko xaju fi. mooy buntu commune bi. mooy buntu commune bi. ndax foofa. ndax foofa. loo mën a def lu mu baax baax. loo mën a def lu mu baax baax. buñ ko defarul buñ ko defarul. màggal gi xam ngeen gën naa duggaat ci biir wax set. màggal gi xam ngeen ne gën naa duggaat ci biir wax wi. kon bu metti woon benn. kon bu metti woon benn. ren dana metti ñaar. ren dana metti ñaaram. te foofu ñuy jóge Kaolack ak. te ñooñu ñay jóge Kaolack. Ndakaaroog Ndakaaroog. ak yi ci aju Cees ak. ak yi ci aju yëpp ci la ko wër. foofee la ñuy duggee. tali bi xasee fat te tali bi bu xasee fat oto yi duñu jàllati oto dootuñu jàll daaw daa nga fa am ñaari waxtu daaw daa fa am ñaari waxtu maadaa mujj di woo gendarmerie maadaa mujj di woo gendarmerie ak waa eh, ONAS itam ak waa ONAS itam teg fi tiwo teg fi ab tiwo nit seen buntu ñu dagg ko tiwo yi nekk nit ñi nga xam ne tiwo yi daa jaar seen buntu kër dañ koy dagg mënuñoo génn ndax mënuñoo génn moo indi jafe-jafe moo indi jafe boo demee ci jàkkee yi jannatul mawa mee sëñ Saliou. boo demee ci jàkkay jannatul mawa kër sëñ Saliou. boo génnee autoroute bi. ñu ci ëpp foofu la ñuy ñu ci ëpp it foofu la ñuy jaaree. foofa itam. foofa itam. bu xasee taw bu xasee taw. kenn mënatu faa jaar. jaar. ak yeneen yi nga xam ne tudd ngeen ko. ak nga xam ne ngeen ko. na nag ndax. bari na nag ndax. ndax loolu moom mii ci la bokk. ndax nee na moom mii ci la bokk. waaye priorité bi mooy yële. waaye nag yi gën a priorité mooy yële ma tudd. mooy yéema tudd nga xam ne. mooy yéema tudd nga xam ne. dafa laal ñëpp moom. dafa moom. kon loolu moom. engagé woon ngeen ak yi nga xam ne engagé woon ngeen ko. nguur nguur gi jëkk. nguur gi leen jëkk. te président Macky Sall defoon ko fi. te président Macky Sall defoon ko fi. na bu ñu ci defee yitte mu àgg. xëy na bu ñu ci defee yitte mu àgg. balaa màggal gi loola. balaa ak màggal gi loola. kon dana woyofal li jëkk. kon dana woyofal li jëkk. li ci des nag. li ci des nag. mooy eh, junj naa ko daaw. mooy junj naa ko daaw. junj naa ko bi fi président bi ñëwee. junj naa ñëwee. Cheikh Mouhamadou Mountakha nee na. Cheikh nee na. loolu la leen di waxaat di leen ko yóbbante sëriñ Saliou daa waxoon président Abdou Diouf na ko sama yitte de du jege sama yitte de du jege waaye bu accès dana mat soxla waaye nag su accès day dana mat soxla sëkk waaye jëpp yitte ju ma lay waaye nag itte jum ci mën a doon ba ma wax la ko maa ngi ñëpp koy bokk maa ñëpp ñoo koy bokk te maa cay gën a néew te maa cay gën a néew la te du weesu te du weesu courant aku yoon aku yoon akum ndox akum ndox li ci des lépp nag. li ci des lépp nag. taalibey sëñ Tuubaa yi. sëñ Tuubaa yi. liñ may andil. liñ may andil. ëpp na samay soxla. ëpp na samay soxla. kon loolu képp laay ittewoo ci kon loolu képp laay ittewoo ci yéen. sëriñ bi nag nee na. nee na. kon itteem ji jëkk fi ne. kon itteem ji jëkk fi mu mooy ndox mi. mooy ndox mi. ak assainissement bi. ak assainissement bi. ndox mi nag. ndox mi nag. xëy na ñu xëy na bari dañ dut xam. waaye leeral da ciy baax. waaye leeral da ciy baax. rawatina lii ma sëñ bi yóbbante tey tey la ko rawatina lii nga xam ne sëñ bi dama ko wax tey ji yóbbante ma ko. ndax polémique bi da ciy bari. ndax wax wax ji da ciy bari. ndax ñii dañuy wax lii ñuy wax lii. ndax ñi ci bari xamuñu te dañuy wax lii ñii di wax lee. bu ko fee day su ko defee nag day indi ak juyoo. li ci am solo nag. li ci am solo nag. mooy lay bëgg-bëgg mooy lay jëm bëgg-bëgg sëñ bi ci boppam. ndax ñii dañuy wax Lac de Guiers. ñii di wax Touba Bogo. ndax Lac de Guiers bi sëriñ bee ko génne woon ci aw làmmiñam waaye dégguñu fa mu waxee ndax fekk na la ko jëkk 2019 euh, ku ñuy wax Mansour Kama yàlla na ko yàlla yërëm bi mu gisee jafe-jafe yi metti ci dëkk bi 2019 moom ci boppam moo jëloon xalaatu boppam ñaw ci sëriñ bi. jaar ci sëriñ Moussa Nawel. jaar ci sëriñ Moussa Nawel. ne ko dama laa bëgg a dimbale. ne ko dama laa bëgg a dimbale. ci saytul la réseau dëkk bi. te say ci saytul la réseau dëkk bi. ndax gis nañ ne réseau bi. ndax gis nañ ne bi. mooy li gën a yàqu. mooy li gën a yàqu. moo tax 37 forage ci dëkk. moo tax fanweeri forage ak juróom-ñaar ci ab dëkk. ñëpp dana jaaxal ñëpp dana leen jaaxal. 37 forage ci dëkk. 37 forage ci ab dëkk. te mënuñu am ndox. te mënuñoo am ndox. te ku xam ku am te ku am ab seetlu it. da nga xam ne ren la gën a ci daaw. da nga xam ne ren jii la gën a métti ci daaw. loolu nag nit ñi dañoo xamul li ko waral. loolu nag nit ñi dañoo xamul li ko waral. ñenn ñi da ngay dégg ñu dañuy saboté. ñenn ñi da ngay dégg ñu naan dañuy saboté. waaye état amul amul amul intérêt ci waaye état moom amul intérêt ci saboté boppam. nit ñi ñi dëkk ci dëkk bi. nit ñi dëkk ci dëkk bi doo dëkk ci ab quartier. bëgg a jaayum bëgg a jaayum ndox ni ko ñenn ñi yaakaare tax ngay tëj ab forage loolu xel da koo nanguwut bañ ko fi waxee man yabaloon naa leen waaye mënee su cee indi nde joo xam ne dana mën a dëggal li ñuy wax loolu li ko waral nag dañ koo xóotalut ñoom ndax réseau bi ci boppam lu ëpp juróom-ñetti at bañ xoolee yàgg bañ ko xoolee yàgg na. boobee day jamono jooja président Abdoulaye Wade moo fi nekkoon. yaakaar naa ne ay 2011 la. mooy bi ñu fiy def projet bi fi banque mooy bi ñuy def projet bi nga xam ne banque islamique développement moo ko fi doon def. booba bi ñu saytoo réseau bi. booba bi ñu saytoo réseau bi. ca yooyee jamono. ca yooyee jamono. wax nañ ne 40 pour cent ci ndox mi. wax nañ ne 40 pour cent ci ndox mi. muy yi génne. muy fo mi forage yi génne. suuf si lu jëmaat. yoo loolee day delluwaat ci suuf si. kon nag bu fekkee ci yooyu jamono la. kon nag bu fekkee ci yooyu jamono la. 2012 2012. bi Macky di doog a ñëw. bi Macky di doog a ñëw. ku ñuy wax Diène Faye. ku ñuy wax Diène Faye. fekk na yàgg na ci hydraulique. fekk na yàgg na ci hydraulique. am ci yéene. am ci yéene. andi beneen xalaat. andiwaat beneen xalaat. wax na gis na ne at mu jot ñu wax na gis na ne at mu jot ñu yokk ay forage waaye bu ñu yokkee forage yi. waaye bu ñu yokkee forage yi. forage yi li muy joxe dafa tuuti. li ñuy joxe daa tuuti. kon li gën. kon li gën. forage bu def 120 mètres cubes. forage bu doon def cent vingt mètres cube. nañ fexe ba yóbbu ko deux cent nangam. nañ fexe ba yóbbu ko deux cent nangam. 2012 13 la ISEN woon. 2012 ko defee. ba mu ko yi am doole ba mu ëpp. forage yi am doole ba mu ëpp. ca la réseau bi gën a explosé. ca la nag réseau ba gën a yàqoo nag. continué moo tax nit ñu bëree bëri duñ xam li ñuy wax li mu doon. diggante 2013 ba nëgëni. diggante 2013 ba nëgëni. boo doon xool li ñu ci def ci forage. boo doon xool li ñu ci def ci ay forage bu ma juumut bu ma juumut gàtt gàtt dana mat fukk ak juróom te màggal gu ak si gën a ñàkkum ndox te màggal gu ak si gën a ñàkkum ndox kon loolu du solution solution bi solution bi mooy sensé réseau bi mooy sensé réseau bi rek xëcc ndox mi sëriñ bi nag nee na sëriñ bi nag nee na Mansour Kama Mansour Kama ba mu ñëwee wax ko ko ba mu ñëwee wax ko ko ba sëñ bi jox ko ci ndigal ba sëñ bi jox ko ci ndigal Mansour ci boppam Mansour ci boppam ba leen sëñ bi yabalee ci moom ba leen sëñ bi yabalee ci moom mii moom moo moo Mansour moo sàkku ci sëriñ bi ne ko bu ma sañoon nga nga yëgal ko ki ndax bala ma cee mën a def dara forage yi kat waa OFOR ñoo ko yilif mënuma cee def dara te jaaruma ci ñoom ba ko waxee sëriñ bi sëriñ bi yónni ko ci président Macky Sall ba mu xoolee kayit yi ba noppi ne ko bëggoon nga bàyyi état bi jël ko en charge ndax loolu daa xaw a diis ñoom nag bi ñuy tàmbali rek ndeysaan ci jamonoy mbas mi moom moomee ci la ko fi suñu borom jëlee mooy Mansour Kama état bi nag defar na étude ba te ñu ngi ko doon topp waxtu wu ne ndax fekk na Serigne Mountakha ci boppam moom xam na fi yëf yi toll waaye moo tax daayira bi ñu tuddee Touba xepp sëriñ bi. ba ñu ñëwee di ko wax seen seen seen mébét. ba ñëwee di ko wax seen i mébét. ci la leen sëriñ bi wax na leen. ci leen sëriñ bi wax na leen. man de sama bëgg-bëgg. man de sama bëgg-bëgg. bu dul woon ak université bi. bu dul toon université bi. Lac de Guiers ba laay jéem a xëcc. Lac de songu jéem koo xëcc. mu ñëw Touba. loolee nag fekk na. loolee nag fekk na. man dégg naa ko lu ëpp ñetti man dégg naa ko lu ëpp ñetti at. ci moom sañ sëñ Muntaxa. ndaka jekk loolee moom aw gis na ma. waaye sëñ bi ko xam àdduna la. ndax xam na ne Lac de ndax xam na ne Lac de bi. mooy solution définitive bi. mooy solution définitive bi. waaye du lu mën a gaaw. waaye nag du lu mën a gaaw. ndax lu Sénégal seq ak ay réew la. ndax lu Sénégal seq ak ay réew la. bala nga cee mën a jël engagement. bala nga cee mën a jël engagement. faaw nga déggoo ci ak ñoom. ndax ku ne fàttaliku na. diggante na président Ablaye Wade. ak euh, président Mourtani Ba. loolee moo andi woon jafe-jafe ba. kon ni ko nit ñi yombale yombewut noonee kon nag sëñ bi daa wax ne dëkk bi sonn nañ lool ci ñàkkum ndox ñëpp a ngi jéem ñëpp a ngi jéem te solution mënut a am euh, ci weeru koor gi rek ci weeru koor gii rek am na benn taalibe boo xam am Pastef na benn taalibe bu am Pastef boo xam ne bi mu ko déggee ma jox ko ci ndigal ñaar fukki camion ak juróom-ñett la luye am nañ dëkk bi fukki fan ak nangam di may nit ñi ndox te amul njariñ kon du mbir mu tuuti nit ñi daal sonn nañ lool am na ñoo xam ne danañ dox lu mat kilomètre di wutum ndox eh, loolu metti na te day gën a metti nag ko xam ni mu bindoo. ndax nab bii ñuy jàmbat nga xam ne bokk na ci li gën a jaaxal waa tubaa bokk na ci yin gën a bëgg ngeen jiital ko ndax xam ngeen ne cérémonie officielle ba daaw defe wuñ ko fañ koo daan defee ci kër sëñ Touba ga te nab bi dong nga ko waraloon te gis nga ni muy yokkoo te 2011 étude yéen defoon étude yéen defoon ba waxoon na réseau bi. 40 pour cent mi ngi dugg ci suuf si. 40 pour cent mi ngi ci lañ waxoon ne bu continuer. ci lañ waxoon ne bu continuer. fii ak i at. Euh, nab bi dana dana bi dana yëkkatiku. man mii bokkoon naa ci ñi ko ñu moom mii bokkoon ci ñi ko njëkkoon wax. waaye dañ ko woyofaloon ñëpp. waaye ba ma ko waxee dañ ko woyofaloon ñëpp. ñun ñëpp a ñëpp ñun ñëpp a ko woyofaloon. tàmbalee ci ñu dem ba gis réalité nag réalité ba. kon nag sëñ ne. kon nag sëñ bi daa wax ne. li jiitu ci ndox mi. mooy ndoxum Touba Bogo mi. mooy ndoxum Touba Bogo mi. ñu fexe ba xëcc ko. ñu fexe ba xëcc ko. ba mu ñëw ba noppi. ba mu ñëw ba noppi. ba loola ba loola àgg. ba loola àgg. Lac de Guiers bi nag doog caa topp. ndax Lac de bi. ndax Lac de bi. mooy di ci ñu xam wàllum ndox. ci ñu xam wàllum ndox. ak ni Touba di màggee. ak ni Touba di màggee. ak fa mu jëm. ak fa jëm. moo koy mën a régler 100 pour cent. moo koy régler nag 100 pour cent. waaye lii fi nekkagul. waaye lii fi nekkagul. ak xayma yi ñu def tubaab boogo bi mën na koo yor ba ba loolee agsi loolu daal dama bëgg mu leer ci seen bopp ngeen xam ne sëñ bi lii mooy décision la ca des nag wàllug état la ñoo xam ñoom nañ koy defee ndax sëriñ bi moom du dugg ci loolu ndax sëñ Saliou bi mu joxee président Ablaye Wade sànc yi da koo waxoon ne ko ko waxee na mu ko bëggee. ba ko waxee na mu ko bëggee. Ablaye Wade wax ci xalaatam. Ablaye wax ci xalaatam. mu ne ko mu ne ko man de dama li ma xam ci yoon wi. ne ko man li ma xam ci yoon wi. mooy yoon wi. yoon wi. du jaxase yëfam. du jaxase ay yëfam. ak yëfi état. état man naa def fee. état mën naa def fee. sëñ bi def fee. bi def fee. waaye nag duñ jaxasoo. seex Muhammadul Muntaxa noonu la ko xamee. moo tax nag ndox mii nag. nga xam ne seen mbir la. nga xam ne seen mbir la. da ngeen cee xalaat. la ngeen cey xalaat nag ak na muy gëne loolu moom yéen yéen nañu ko gën a xam waaye moom lii ma la wax daal mooy yitteem ji gën a far ndox mi jiitu daal Lac de Guiers bi doog caa topp ndax Lac de Guiers bi bala ngeen di xalaat bay am autorisation rek loolu xam nga mën naa mat ay atam déet te fi dëkk bi àgg ci aw mar metti na ndax lale sax mënta gaaw ndax lale sax mënta gaaw rawatina lii te nit ñi nag boo leen di wax da nga leen di wax dëgg ñu teel a xam li manaam a am ndax feeg màggal euh, ku ne xam na ne luñ góorgóorlu góorgóorlu dañuy fexe ba mu tane waaye fexe ba ñëpp amum ndox moom munta nekk loolu ku ci dugg itam buñ la gërëmee tey li ñuy wax yàkkamti saw tagg lay doon li ci am solo rek mooy yéen ngeen xool nam gëne ngeen seet nam gën a baaxe nam gën a tegaw ci yoon